We are tuned to Star on 96.6 FM.
Simula nun ng Fogala Serere, tamunong bang nun ng Gilotare, kay Wano Serere, kondak na nai Serere. Ayag na nung program ni Kole Garacho, sana Serere na garami kan Radio Lesta FM 96.6 FM. Ano yun po pag nun sila, mando nga atan na nung bagbabu karapay. Ako tunan na bakto pa hata karikadam na bakto pa hata daka, no dimas nung rap na dimas nung sa Tawid na Amerika ka atan na nun. Ang gusto ang hambualing krip na chusan no Serere, leko lek sa kiyonit makwa, ano na yakan na lain ka, ano na yakan na ba chusan in, lain bara yung bukay indif na alaya kay irap na, kinta kong rap ko yung gano'n karekten, atan na nun na dimas nung sa Tawid na Amerika na sa FM Radio 96.6 FM ban dal ni mo ha kanin gar mi dimas mo rek na bolem mo fogale sere innovation nan yo kan nan jalo pog non Suleman dong ha na gara nan men
At yang ada ka kay di makasal kay sa tuhod ng amik rekano sa FM Radio. Ano yun na kinafukog nun na sila mandong pinaasanan nun na programa si Rera. Mula yung na kumunurak na nitsakan si Rera ka. Ah, At nanun may ka na sa FM Radio 96.6 FM. Agin mga yalo kayo po para ka kay Ching na inkatan na buhay ba ako sa tuhod may ka. Agili mambole masire kam sahle adam yehua katasi kam Senegal bon sahla. Agil manu na pa pa na naglo ka muslim yung naglo ka program ni kadi masun sa tokil na. Ano na na si mong sene yang kasere ra kan barang yang kasere ra. Akan yang mau selera kapah apa karek yang kamu naimbi kena di madun satorin dari megre karena sa FM radio akan anum boleh kena itu dari batusan dapat anum mereka walang kurang mereka ka anu mereka kanin bahkan puden kena itu dari tuh apa no selera asim na boleh mau selera no belum pasti mau kalau atau nua aku nari fanu lang kena waktu feka Awitan na nung narikan nung nang giwa ka asta FM radio 96.6 FM yung pagpagun na sila mga Away malimbing ka aserera. Ang dami gut ka dito. Yung pagkali aserera kung nang nagkakas ng kilo harik. May kilo ka ng paka-paka dal na ng program ni Kuledara. Ambik na sa FM. Kung naibig ka na dumasong sa tuwa dahil ka kay sa nini kuntinay ka na ako anun. At tunuwa ko na rafira ka. Dami maka na sa FM rin kung nang kilo ka. Ang buling ka na ito ni Atan Kalmo kay wala fiyang asak ha. Kani basan nun yung jembog ng program eh. Kaya kung nalagaan mo nun rin. Kano dimaswa na pasin na rin kami dyan na nagka program ni Indo Punakin. Kani kuntinay naibig kay guna ang gura humnan na rin ka dana ka buga ko pa in ka ano na itong dawa to sano sa rin kentang rin kay ingat ka nun ah, nin Ah, ito ka ano na itong day yung guro ka ang bugong baktan rin ka na itong dawa at to sano sa rin tanong ko sa rin wag na rin ka inwe ang yukan ang jalan ano nang gula ka mo gulong nang gula ka na brain ka rin kakan nira ko boleh ma sa rin at ang huwag na rin ka inwe ang gula ka apa apa ah, sa kan tumawi ano na rin ka ang nang gula kayo o program ni kami ng daknayo ay yung basta o program ni Leaf Ah, dagbo kamudyong o dagkakiro ka dyan ko na popa yung bayangin ng binari ka popa yung nagkiro ka dyan imam alkal yung yung yung nagkiro ka dyan pakapak nagkiro ka boleh mo kung ano yung yung daklan yung yung nagkiro ka na pakapak at yung bago na ka na tamo na pek nagkiro ka ano na yun na hindi umagalamitin na daklan nga pa yung yung nagkiro ka lang kung na mas na jay ba at pulo ka lang yung yung nagkiro ka dyan din ako Ano ibitan rin ka kaya iwi ang kuruha kinanunod ka may ka paano na rin ka kanimbaktan ko rin ng bulim ka na rin na ba at chusan no sirer rapakino ka amin ko iya dana ka imiano sungla rin ka may ka na sa FM radio aro ka pikoy kaya injig may kinda andami o sirer ka lag nanda nira sirer na bulik rin ka ni na rin ka ano ni rimi na sirer bukyan rin na rin na kirit na tigil mo yaro kay kama sirer akin sa kundi ka dalam le adlajo omo tanda bundi kreka kedi ka khitifa anu ne reka khupa sah ke awe anu ne ambil dia dalam le khitifa ne tenjek nak anu ne tenda fa khidle asir tenna dan ka dalam le amu amu ko nda bundi ka khidi khene ne tenjek na wala khidi ne tenjek na nuse da ya jalol na kreka fa anu ne reka dan ka hay bilasa ko ya inshallah anda bundi ka sabto ko dalam kreka anu ne tenda fa susanu mi ke susanu na dan ka inshallah gambia mek di ki anu ne tenda fa susanu ibu kuno ongor koy mbaxtaan ko dem ki amene ko na yono ka fu ke fiya mi te def na fu ko ma jofno ki amene ko leba ci jonna se xani ba sin dek ndok ko na olof koy mbaxtaan ko na pa pa kan dem ten delam la mu xolit te rek te le dem def an sin no fu ko le sire fop mbaxtaan ko te ala en ki amene ten agino ko nu kan tan dafa ak san serer way mbala indi tari ke gin makina mbolem serer la bondi rek xani def no problème bo ta fam mbala i it kayo we andene rek na yo na fa ina fa fa nu kam saxle fi nga nek tamjir fu mu nekk nii daal daanaka gars yi yow la ñëw déglu comme ni ma ko waxee si séeréer rek ñu ngi lay gërëm bu baax a baax comme di ko di leen ko égal yi ne non ndax fu mu nekk nii tey dañ am gan boo xam ne la daal gan yi séeréer la daanaka waaye fi mu dëkk dem nekk bitim réew di yëngatu si li nga xam ne moom mooy séeréer daanaka xam naa ne kàddu gi li film bi naka lañ ko dee tuddatee wax séeréer nag daf ko xaala réer waaye ba tey am na loo xam ne lu gën a am solo loolu noonu loo xam ne mu ngi koy def si wàllu séeréer daanaka affaire bi cosaan bi kii dafay féete fii kale féete fële na rek ñu mun ko yóbbu si si kanam su boobaa rek comme ñu mën nañ ko waxee rek dinañ waxtaan ak yow si li nga xam ne loolu nga jublu si affaire cosaan séeréer si li nga nekk li nga def si affaire cosaan séeréer ak li nga éegee cosaan séeréer kon nga ko éegee éegale si li nga xam ne si loolu nga yëngatu na la bàyyi rek nga ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu Asta FM radio si jamono bi Uh, Jërëjëf Souleymane jërëjëf jërëjëf Souleymane donc thank you very much yow indi bi ma indi ma sa sa station bi fii maa ngi waxtaan ak mbokk yi mu ngi si réew ba naa kontaan naa si lii ni mu cee lifin naka lay bëgg ma boobu mën naa ne xamoon naa ne ay lifin naka lay yàgg naa si mbiri séeréer pour ñu préserve suñu culture suñu préserve suñu héritage yàgg naa ko di ko def
ok yàgg nga di ko def loolu am na solo lool lool lool si li nga xam ne moom mooy dekkil suñu cosaan képp koo xam ne rek yëngatu na comme ni ko ni nga yëngatoo rek loolu dina nekk lu am solo naka nga yëngatoo si affaire cosaani séeréer man bu ma moo njëkk a door di def léegi nag ay ko tees en 2008.
waaw Fura 2008 laa gën a dugg si mbiri séeréer dama daan def loolu te dama daan interview dama daan waxtaan ak kilifa yi. balaa loolu sax dama daan waxtaan ak kooku kooku nee nañ ko dëkkee suuf soow. dama daan waxtaan ak ay kilifa yi nga xam ne ñu bari nekk fi fii dañu jëlee nañu àddina. di leen record di interview si mbiri cosaan. cosaani Sénégal yëpp suma suma suma mu mën a wax fii te jotuma suma oncle Alaaji Thiam Diouf.
avec Thiambi.
Alhaji Thiam bi nga xam ne moom moo nekkoon director of programme sa director of um, local languages radio Gambia den den radio Gambia ñi nga xam ne ñoo indi cosaani Sénégal bi la time boobu noonu rajo Sénégal ak rajo Gambie ñoo ko daan doxal. back in the 1973. 1973 time boobu xaaj jur bi fi na ko at boobu laa judd. bon léegi nag ñoom yàgg nañ si su bu ma dama dama dama dama jéem jiw ñu fekkal ci ma kilifa yi ñu doon def di ma dama jàpp di ma jàpp di def nag. bon tey defi naka lay ko jeesa ci li ma daan wax rek mooy dama daan toog di waxtaan ak kilifa yi nga xam ne nekk fii fii. di di leen si mbiri cosaani Sénégal bi la. moom moo gën a moom gën a jógloo woon. wante mu dem nag bi nga xam ne dem naa di jàngal cosaani séeréer biir. jàngal ko especially tradition religion séeréer. ak xool ci ak histoire séeréer. ñu di leen dox ba doon loo xam ne dafa ma neex trop. loo xam ne suñu maam yi nga xam ne ñu nga génn nañu àddina fii nii lu lu ma leen mën a waxee rek mooy jàmbaar.
jàmbaar lañ dëgg la.
jàmbaar lañ dégg ku képp koo wax ne koo ne cosaani Sénégal mi la. nga ne cosaani Sénégal cosaani Gambie cosaani Sénégal ko cosaani Afrique boole bu la si cosaani séeréer. kon loolu du cosaan.
du cosaan.
ñu ci suñu cosaan dafa yàgg cosaani séeréer dafa yàgg cosaani séeréer dafa am valeur bu noble lu lu xam ne lu mu war a gàtte la. mu xam ne defi naka lu am solo la. te war suñu suñu xale yi nga xam ne suñu seeti ak suñu sesi saari wala bi nga xam ne moom lu bëri nag réer nañu lu bëri réer nañu. li nga xam ne jot nañ ko denc ñu jàngale ko jàngale ko suñu xale yi. man nag 2008 si laa gën a jóg si biir Séeréer. ñu te 2008 laa set up organisation si Angleterre bi ñu ne woon de Séeréer Resource Center.
Séeréer bi sax seen seen.
de Séeréer Resource Center loolu noonu centre boo xam ne la li fi nekk dafa loo lépp lu jub si mbiri Séeréer yi mbiri cosaani Séeréer parce que askani Séeréer. daf koo béy ci di ko garder.
Ok.
du ko ñu ko nit ñi ñu ñu nga bëgg ñu bëgg a jàng ko ñu bëgg a xam resources au response yi nga xam ne fa lañ ko mën a jàngee. am ko available on available on our organisation. am na université université si nga xam ne ñu ngi Angleterre sax. suñ daan ñoo def dara si mbiri Sénégal bi sax. dañ ko contacter le docteur pour laaj leen fan la ñu mën a amee ren yi naka resources information boobu noonu. kooku fan la ñu ko mën a jëlee daal. mais saa bi ba tey maa ngi toog di waxtaan ak yow nii sax. am ñu bari ñoo xam ne ci biir liggéey bi diwlu bitim réew boobu ñu ñëw seen ay IES bitim réew yeneen dëkk Amérique Norvège Sweden France foofu la tudd rek di ñu seen ay ñu ci bari bari dañ bëgg a jàngale yi naka ñu jàngale nii fan ñoo amee rek am bu yàgg nii sa bana maa ñëw tey am na kuy bind bu ko bind bu Amérique kuy bëgg a bind bu si ngir di naka am the slave trade mooy sami jaam yi ci def si suuf liggéey la waaye di naka nobel la wala ci def si bëgg a boole séeréer si ak saltige yi saltige.
daf ñuy def ñuy seen def ñuy seen bu yàgg bu yàgg nii si wàllu liggéey nag foofu laa foofu laa doon respond email am ak email am. so surtout 2008 boobu noonu si laa jóg di def Séeréer Resource Center yoo xam ne dafa jàpp si séeréer rek bu mu foofu lay jëlee dégg bi bi wante nag man kenn mën nga dégg séeréer dafa dafa diis te bu yàgg.
dafa yaatu.
yow ba yow bari bari doo ko mën a def.
doo ko mën a def.
doo ko mën a def yow kenn. so si laa jóg nag. indi ay nit. nga xam ne respect naa leen si góor nañ ba seen baal yu si.
ah comme que balaa ñuy dugg si loolu noonu rek na la bëgg a laajte dara tuddi ah si li nga xam ne mooy ah, yow ah, comme say cosaani séeréer ah li nga xam ne ñun ñooy ay séeréer ñi nga xam ne ñooñu leen si bàyyande ko yow lu la xiir yow sa cosaan la wala yow da nga bëgg li nga doon wala ah, naka la nga fa demee daal si li nga xam ne moom moo la gën a you know, encourage pour nga duggal si affaire cosaani séeréer parce que gis nañ fi ay séeréer yu bari ñoo xam ne ñu ngi téye seen loxo nekkul di gëstu seen cosaan nekkul di dimbale nit pour mu war a sustain li nga xam ne moom mooy suñu cosaan bi wala di ko développe yow lu la lu la xiir si loolu noonu ndax da nga nekk doomi Gambien wala Sénégambien dem foofu na rek am opportunité di ko def wala yow da nga bëgg a sa cosaan ou sa culture moo tax nga koo def du ma si dugal am Souleymane mënoon nga tontu nga xam ne am lifin na honest tout tout an honest answer mooy mooy lii ni te lifin nag man dama jàng am lifin nag histoire Sénégal bi ni te man ma wax si njëlbeen Alaaji Thiam Diouf sama Papa Thiam Diouf am lu ma ko jàngee si xeet yi nekk suñu Gambie bu ma ne bu ma ne téere moo gën dañ gën loolu ma wax mu ñun te ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp dañ bokk su lifi naka lañ koy tee sa xeet bu si nekka lifi naka am na baal yu am te wante nag man séeréer si cosaanam daal loo xam ne dafa du du du ma du ma soppam la mais bu ma jàngee ba mu ne la ilaha illallah lii day moom lifi naka lañ koy tee sa di te ma jàng seen culture seen histoire mu ne ah lii day moom lifi na lii war nañ koo garder te gis naa nag bu ma demee ba suma bi bi seetlu gis naa nag lifi naka lañ koy tee sa suñ cosaan séeréer suñ cosaan yu bari bari bari mu ngi réer kilifa yi nga xam ne ñoo ko amoon génne nañu àddina ñi nga amoon xel xam gi gën nañu àddina so maa ngi mu ne ah ma ne lii day moom suñ ko gardé wut dinañu wér près di fii nag kii mën séeréer du xamante boppam so loolu moom a tax a jóg si mbiru séeréer si suñ cosaan ak suñ askan waaw waaw loolu rafet na ah loolu ah loolu nag ah, nekk na loo xam ne ah, am na solo bu baax a baax comme foog na nag gino xarik ne lay ana mo nun piranda am ngay asin na xina nun pa pa jukan na nyal dan nang gilo xam sulu ala yan rek ah, inyong gura mi ko xam ne rek ah, tanda ba tam si juf again na mi ka kam sakle gambia rek anda move ke eh, angleterre ara ko ando na rek ay gusto o hakan na tanda ba san serera ba arek nun na nakitila ina arek ba asik ka ando na tanda ba kulang pa ando na rek makakam angleterre sereer ake gis o xa mbolem ka ando naye ten ref affaire cosaan wala ke na ñowdan ka cosaan sereer axe jegan maga kam affaire a ñaƴan fo wiin wa ando naye rek a janga den de njala maga tam nu comme nu kina waag na soxna no affaire sereer wala cosaan sereer maga kam angleterre rek a fena xaye saqan wala nana ke de leyna wiin mayu a nangano topa pour a ngestoga den ndefa affaire cosaan o ten fo xoxum koy a refa xa ando naye xa bug na keke ref nayo ken taxun ten ɓekun no ke ando naye ten refa gestu oxa cosaan sereer ba a ret bo nu ret lamit ci ma may wa amira mi ka ci san in dana kam mi ka kam sarle sene gambia gisu o hadena pa pa ba wa go dikri deg na maka kam anga dira wira dira jo radio sere radio la anone sere sere ro rek fu ko lang fa anone maga dal ak affaire sere som ref maga tende ba at tam sur ju ba ndam ndik rek at tam sur comme ni ko waxe rek lolu nek na lo xamne lu am solo la legi fu nek ni nga xamne ñom ñoo ñu lay dimbalé ci affaire gestu sere wala sere son system bu wara sere studio bu ay séeréer lañ war a nekkul séeréer ah ban dee bu xëy naka yi am na ñu ñu si ëpp yëpp séeréer lañ ñu si ëpp séeréer lañ ci man ma bu ma doon commencé loolu noonu ni tey bëgg naa doolu utul naa ko wante ne dama ubbi woon defi bunta bi nga xam ne ku bugg a doon rek ah sangat neexa nga doomi Sénégal mais neexa nga doomi africain bugg a jàppante si loolu noonu lu ñoo def noonu kon nag ubbi naa la bunta bi am na ñu fii nag gisu ko nag ay séeréer lañ doomi séeréer lañ wante am na ñoo xam ne luñ doomi séeréer ay doomi fulaa lañ ay fii nag am na ñu wala si nekk am nañu ay tukulóor yu si nekk so wante gisu ko ay séeréer lañ so am li fii nag lañ koy teg ku si teg ñun ñëpp ñoo ngi leen a gërëm te man du ma ko du ma wax du ma dee wax rek mooy lii nii man lii ok dama ko kii dama ko dama ko def wante lii mënuma ko mën su ma ko su ma mën kee rek du ma ko buñ ñoom du ma ko mën a def duñ su suñu toon ñoom te duñ si duñ cee rufi bi ci laajte dara dañ ko def ñu ko te dañ bëgg askan bi dem kanam soo man rufi nag dañ gis du ma du ma stoppé si mbir du ma si jógee du ma si taxawee ñun itam ñu ngi ko def ñu cee bëgg si dara xam nañ ne defe lii ñu suñ su demee kanam askan bi demee kanam ñu ñëpp la demal kanam dañ tax si biir tam ñoom tam ñu jóg si waaw di leen gërëm bu baax a baax si liggéey boobu noonu atam si léegi fi mu nekk nii yow sa sa gis-gis cosaani séeréer si biir Sénégal yow wala particulièrement Gambie si boppam loo si jàngat
lu ma si jàngal ah Sénégal yi naka man nag xam nga démb wax na waxtaan na yi yi naka just briefly wante man yi naka damay diisoo ay sénégalais ci c'est les séeréer yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew damay diisoo ñoom wante li fi naka man foogu mu woon ne rue station yi séeréer sax am na fii nii tey si Gambia fii ni teel fii naka loolu du ñu fóol ñii di xaas boo gis ñu ngi bind si ñu ngi wax si mbiri si mbiri wala dañoo wax woo si mbiri yeneen xeeti xeet yu am doole si si Gambia fii nii dama lay dégg ni man damaa ñëw fii biir Gambia dugg fii nii wante xooma woon ne sax radio station mu ngi fii mu ngi mu ngi mu ngi si séeréer radio station séeréer radio programme mu ngi am na fii su man nag li fi naka lañ koy kee sax wante li fi man moo tax man buñ ma ko gisee ma ne ndaa bii léegi moom foog ma ñëw taxaw gisee na ko yow boo bokk si c'est daf daf daf ma bëggoo li nga yow ngay li ngay def li ngay def nii lu am lu am lu am njëriñ la lu am njëriñ la comme wax naa la ko démal li lu ko xeeb mukk lu am njëriñ la li te ñu ngi koo def fii Gambia fii spécialiste a bariwul moo tax nag fi naka te Gam te Gambia ni dañ leen dégg man lu li ñu tey wax rek mooy ne séeréer yi bari wuñ Gambia it's about two percent according to the de l' according to the statistics wante li ma lay wax rek mooy lii képp koo ne doomi wolof nga te fa ko ne doomi wolof nga soo soo demee laajteen soo soo gisee seen tur seen tur yi seen tur yi aw seen sant yi ak seen maam yi ay séeréer lañ.
séeréer lañ ay séeréer lañu kilifa yi nga xamoon ne xamoon nañ. te nekk suñu àddina fii nii. ñoom ci kilifa wolof yi. nañ la ko wax ñoom. nañ la ne ñoom si séeréer lañ ci séeréer lañ faaxeekoo.
séeréer lañ faxe wala kuréel yi fa moo tax suñ ñëwoon léegi naka léegi boobu lu indi problème bi mooy lifin wolofisation wolofisation nag dafa ak dafa affecté Gambia fii bu bari sax. affecté Sénégal bu bari. wante li fi naka lañ koy képp ku ne doomi wolof nga te nga laal loo si séeréer sa maam nekkuy séeréer loolu amut séeréer yu wala fi naan ñoom si séeréer moo tax la fi ak pulaar yi ngay dégg suñu mbokki pulaar yi si gàmmu lañu ñoom tamit ay fi daka lañ ko ak tukulóor yi suñu ñoom seen seen maam yi ak lébu yi ñoom lébu yi ñoom lañ ko wax carrément ñoom ñi nga xam ne xam lébu ñi nga xam ne xam nañ xam nañ cosaan dañoo moo tax la fi naka émi soo seetee seen sant sax comme ni ay pay dañ ko jëlee si bàtti séeréer muy pay seen seen seen rab seen lébu rab yi jinde yu ñoo wax noonu mooy séeréer pangoor yi yooyu noonu soo ñoom loolu noonu am na nag fi nag ñi nga xam ne nag ñu ngi suñ làkk bi mu ma ñuul man nag lu ma gën a loon tey fii nii ma ñëw sa sa sa programme sa séeréer programme bii may làkkaat yow ay séeréer bu neex sax loolu ma gën a loon Souleymane wante xam nga ne lu jëm lu jamono demee rek yareewuñ ma noonu nit ñi nag jàngaluñ ma làkk bi da nga xam ne nag dama dem ba réer ma so loolu moo ne fi moo tax séeréer bu yëfee nag làkk bu am solo la làkk bu am làkk bu diis la man nag maa ngi ko fay di jàng waaw kay def lu ma mun nag. wante lu ma gën a doon tey ma toog ma ñu waxtaan yow si suñu parti suñu parti ah séeréer.
ah loolu loolu loolu loolu moo ñu doon gënal nit ñi ba waaye ba tey léegi daanaka xam naa ne ñuy déglu tam ñu bari dégg nañ li nga nekk di wax mooy olof bi te olof bi si foofu comme ni mu ko waxee loolu olof dafa nekk loo xam ne lu cosaanoo si séeréer la kon boog yi noo soo déggee olof rek daanaka affaire bi ba tey réer réer amuloo bu baax.
ah wolof amut sax Souleymane wolof amut. wolof wolof bu ñu la laajte nii sax. làkki lébu lay woon mooy làkki lébu làkki lébu la woon lébu lébu wala bu ñu làkk ni mooy làkki lébu lébu ñoo ñoo ñoo ko ñoo ko ñoo sanca wolof ñoo sanca léegi soo te lébu yi ñoom ñooy ñoom dañ ne ko wax carrément say maam ay séeréer lañ seen sant yi te ñu bëri si ay séeréer lañ sax séeréer séeréer xam nga xam nga lébu dafa neexal tur waaw lébu lébu lébu séeréer waaw lébu séeréer la ñu ko neexal tur lébu séeréer la waaw léegi bi tey comme daanaka loolu tam bokk na si li nga xam ne li moo li suñu langue bokk na li nga xam ne war nañ ko développe bu baax a baax si nga xam ne mooy suñu cosaan because parce que soo déggee cosaan wala soo déggee aada culture doo mën a dem te bàyyi language it is very significant in the culture Absolutely.
waaw góor léegi fi mu nekk nii yow si sa gis-gis naka la ñu mën a développé di language léegi bi ko because daanaka lu bari mu ngi réer te li nga xam ne moo koy réeral mooy ñàkk a mun a wax séeréer wala dégg séeréer moo ko nekk di réeral Dégg la.
that is the language naka la ñu mën a soutenir language bi language séeréer au développe ko fii si biir Gambie man lu ma dee wax rek mooy lii Souleymane képp koo xam ne doomi séeréer nga te dégg nga si làkk bi jàngal bu pare par par fasal kii pour mu jàngal ko sa sa doom yi. léegi su ne sa doom yi moom la ñu war làkk. léegi su ne li fi naka lañ ko ñi nga xam am na ñoo xam ne tam séeréer lañ. bëgg a cosaan séeréer tool. bu wante wante daal dégguñu làkk bi comme ni man. dégguñu làkk bi soo defee ñi nga xam ne dégg nañ nag. ñoom nag ñoom ñoo war a jóg li fi naka lañ ko dimbale ñi nga xam ne dégguñ te bëgg a bëgg bëgg a bëgg a cosaan bëgg a làkk bi. ba pare di ko jàngal seen doom yi. ba pare li fi naka lañ ko gis ñu am ay organisation yoo xam ne ñoom ñooy promote li fi naka séeréer culture ak séeréer séeréer héritage. dafa ak suñu làkk bi up to government house su nekkee dafa ñuy ñu fi naka ñu te dañ ko war a inco inco incorporate into our education system. waaw mais te moo gën ñuy jàngal di làkk làkki tubaab yi. ay làkki arabe yi. ba pare ñu déglu suñu boppam déglu déglu suñu làkk loolu amul njëriñ. man lu ma dee wax rek mooy lii suma suma suma jarbaat sax ma ko di wax ma ne ko waaw bëgg nga yàgg làkk yi gis gis ba mu ngi Angleterre moom. ma ko def waaye soo bëgg xam nga yow mun ngaa def seen history. history tubaab wante méngale su ko ne yow noonu xam nga sa history yow xam nga fi nga jógee. soo loolu soo loolu noonu noonu comme ni noonu la mën a mel suñu làkkatam si làkkatam noonu lañ noonu lañ ko war a defalee. bala ngeen dem di làkk laaj yi jàmbur nañ nekk soo ñun xam nañ suñu bopp ba dëgër si. ba pare doo dem laaj yi jàngal ja jàngal laaj yi.
that's that's loolu loolu lu am solo la waaye léegi fi mu nekk nii comme like person personnellement comme like yow as an individual. dama bëgg nga jox wax ma jox sa profile tuuti in in depth you know yow sa cosaan si biir séeréer. ah fan la ko nekk si ban xeeti séeréer la ko nekk wala si ban community. oo oo oo geographical location si biir séeréer si nga connect man suma maam yi ñu ngi jógee Sine Sine Sine Saalum laa mën a wax.
Sine Saalum.
Sine Saalum ñooñu ñoonu ay séeréer si ñi lañ seex seex ñooñu ñoo wax seex. ñooñu ñoonu am ñooñu suñ ñoom kii nag mooy juufee yooyu ñoonu sàncoon ñoom ba ba Bawol lan lañ jógee ñoom original yi.
Bawol.
ba ba dafa ñuy dégg dugg Sine Bawol lañ dëkkoon.
Bawol.
mooy suñu suñu maam Laman Njigaan Juuf.
Laman Njigaan.
kooku moo sàncoon Dukaar.
Dukaar.
moo jógee woon Lambay. ah xaati ko dafa was around the 11th century roughly. around the 11th century. ju jógee jógee Lambay. dem foofu noonu sànca Dukaar. ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom dëkk yi dëkk séeréer yi nga xam ne ñu yàgg yi cosaan yi dëkk séeréer cosaan yu yàgg yooyu ngay dégg soo déggee Sénégal kooku soo kooku laman jigaan ji boobu suñu maam la na mu jëgaan ji laman laman la woon laman soo déggee laman si bàtti séeréer xam déglu ma wax la lii nii sax mooy li fi borom suuf si borom suuf si borom suuf si la man soo li fi nekk dégg ma séeréer la wante xam ne naa am na yu bëri yoo xam ne cosaan lañ dégg naa xam naa ne xam naa ne loolu mu ngi jógee si doon na laman danaka si séeréer comme mooy olam mooy koo xam ne di nga doon na waaw xam naa laman boobu noonu comme ni nga ni nga waxee rek Waaw.
pour dëgëral li nga wax noonu waaw si laman waaw bi ñu jógee foofu noonu euh, comme ni nga doon explain euh, from there on euh, fan lañ fan lañ waaw man kon ma doon wax rek soo laman jigaan jóg kooku moo jógee woon la mbay dem am si am si si dëkk si si Sine dem Sampa Fatuka ak ñoom jóg ak yeneen dëkk yu bari fu noonu. moom moo moom moo taaloon suuf sax. ñu jox wax li fi naka am séeréer si suñu maam bi séeréer loolu lañ daan def. dañ ñoo sant ki dëkkal dañ koo dañ ko dañ daan taal suuf si. fu mu em fu mu em moom foofu noonu foofu ñoom ñëpp ñoo ko moom. ñu ngi naka kër askan wi yàgg yi la comme ni seeneen seen ñoom seen seen famille bi ñoom ne ñoom ba ñoom tam borom suuf ne yàgg nañ si cosaani séeréer bu yàgg ñoom it juufeen yàgg nañ si ak yeneen saareen ñoom tam yàgg nañ si famille boobu noonu so bu ñu fi nee nag ñun after am, bi nga xamee ne nag am, gelwaare gelwaare yi nga xamee ne ñoo jógee woon am, fii nii am, fii fii waaye naka am, ga- kaabu kaabu gaabu gaabu ñoo ñëw ñu jógee woon kaabu dem foog naa ñoom dañ amoon ay lifin ndaka jafe-jafe Jafe-jafe.
ak ñaan coo ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ñoom saaneel ñoom s- ñoom saaneel famille boobu noonu dem dugg si biir séeréer yi suñ maam yi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay lam ñi ñoo leen jox loolu cër joxoon leen foofu noonu ñu bëgg a se nag ñoom man sa waali saan ñoom man sa waali jon man sa waali saaneel may ma ma maa ne sooy man sa waali maa ne Man sa waali maa ne sa boobu maa maa maa ne la sant ñu bëri xamee wu loolu noonu dañ ko lay wax may sa waali jon jon lifin la rek tuuti tuuti tuuti lifin la rek la wante maa ne la santoon mooy maa ne ak yooyu ñoom nag ñuy tàkkoo ak saan ñi nga xam ne ñooy sant saane ñoom ñu dugg ñu ñëw si biir dëkk séeréer yi suy maam yi laam ñu jox leen foofu noonu kër jox leen foofu noonu lifin ñoom siganteeg ñoom moo taxoon ñu buur yi buur yi Sine ak buur yi Saalum suñ maam ndaa njéeme Juuf nag moom moo sàcc ñi nga moo sànc suñ suñ ñi fi naka suñ askan yi suñ jufee ñoom si moom moom si maam daan ñeme juuf moom doomam yi ñoo ko bàyyi juuf ba pare dem kooku lu moo jur pour pataal ko juuf ki nga xamoon ne moom la ñu wax ne moom moom la ñu bàkk pataal ñu ko xool ñëpp xaas xaw ma naka lañ ko seet séeréer si ñi nga xam ne dégg nañ ci séeréer defi naka jëwër yi nga xam ne dégg nañ séeréer moom la ñu bàkk moom la ñu bàkk loolu Waaw.
doomam bi nag ñoom ñoo si ay galwaare mooy jur ñi nga dégg Sénégal ñu fay ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Mbuur Siin ak Mbuur Saalum suñu nag suñu maam fa la jógee suñu maam Kocc Diouf moom moo jógee woon si si Sénégal foofu noonu am around the 19th century ñu dem ñu ne ko dem Jolof ñu ne ko suñu am suñu jabar foofu noonu mooy suñu maam Fàkke bi Njaay boo ko noonu sista ak Buur Ba ak Buur Njaay la ñoo foofu moom ñu Gambia doomam bi nag ku ñu wax Wóoli Diouf nag moo ñu sant ñun Wóoli.
suñu naay beneen doomam ji ku ñuy wax Faara taawam bu góor gi moom moo desoo Sénégal waaw il faut que famille boobu la dëkkee ok Buru Diouf moom moom bu ñu ñëwee Gambie fan la bées moom bu ñu wéer Gambie moom su ma su ma su ma xam-xam moom baa ñu la nekkoon moom baa ñu la nekkoon xaw ma fan si exact Ok, waaw.
moom moom moo sant Diouf moom moo nekkoon moom moom moo gëjee Dioufeen suñu Dioufeen saaj bi brodam bi elde brodam bi moom mu defoon daal Sénégal moom moo gëjee moom am ko ñëw ak yu bari bari bari waaw ah loolu am na solo loola loola kooku mooy ah Tamsir ah, Diouf rek ah, nekk ki nga xam ne moom moo nekk di roon ah, Seereer Resource Centre foofu si biir Angleterre te ah, ànd ak ko ak ah, Seereer Radio foofu si biir England ñu ngi ko gërëm ah, bu baax a baax foog na nangilo xaare ko nu na na tere fa Tamsir Diouf ah, te ñu dan xaye anu programme ah, Seereer Kolo Drambe na sa FM Radio 96.6 FM ah, mbaxtaan na fo ten na mboolem ka andoona yee ten retuñu affaire adano Seereer ah, tena refa xa andoona yee gëstu oxa ke andoona yee ten refa cosaan Seereer a paax a paax wala gëstu oxan paax a wala ba a jeg ke andoona yee rek ten ref a ke andoona yee ten saxan ka mi ka cos- eh, cosaan sereer a nama xulang nen te a ñaƴa maaga kam wala xulang laaga te a sibna a refna maaga kam Angleterre fo o radio laaga rek a kete um fop wala kaga kete fiya fop mooy a te a a ñoowdan a cosaan a sereer in way ngidman nu kaaga a paax a paax a mbala i ndeta rek a xan na waaso fogole na nangilooxa rek a a fa a musique ke rek a bo o tapaam i ɓato sutoxin nu ka andoona yee ten refa waxtaan le
Ah!
anda ko fogole nan gilo xare kan giro xene nuna pax mbolay continue an waxtaan le rek a xando kam sadi fe rek a xiro xa mbole mi andona rek a nan gilo xaya programme ne a taxor ina maga a, kam a face a njaga coy alaji omar a seni nu xiro xana paxa pax ibu kora a moses a a nden a ndet bo a motar a care in mbole mi andona mi na yono xay nu affaire cosaan sereer in way ngidma den a paxa pax a fatu a sarin fopa a samba sarin fopa in way ngiro xa den a paxa pax a ndal na den programme mbolu fay borom parada adama sina fay a ndet bo kam a ndef len koy a mitin ne faak rek a i content a paxa pax a dal na mosuno nu ndalin na in maga kama a ndef leng a mbexena i naqina xe rek a bo i mbago a rek a ngeƴa no ke andona tena fa mal ne a ndef leng a paxa pax a kam sire axe gidma nuun a paax a fiyanga rek a mbole moxum nana waxe kam a ndef leng rek a in way ngiroxang a paax xotan no Master Ndiaye a ndeta a Awa a Ndiaye in way ngiroxa den a paax a paax ya Aissatou Diouf in in way a ngiroxa den a paax fadi a Bass a in way simna den a paax a paax a Salifu a Ndonging in way a ngiroxa den a mbole moxum nana waxe ndef leng rek a in way a simnang a paax a paax da fi ba ken dim lim a ndef leng a fop koy nda mbole moxum nana waxe mol ne ndef leng rek a in way a ngidmang a paax a paax a njoka nuun a njal a fiyanga rek a Tamsir a xani a continuer a waxtaan le a pa a Tamsir ɗeetik ke andoona yee ten a, na mu ha ñëw da nga ko andona ten dafa cosaanu séeréer bu ñu fay mbarum bi fi ka andona ten xene u ke andona ten dafa cosaanu séeréer tam si léegi fi mu nekk nii daanaka cosaanu séeréer fii si biir Gambia si boor bi ñëw demee mooy si boori media bi boobu daanaka mu ngay dem tuuti éducation bi nag boobu tam nekk na loo xam ne mu ngay dem waaye ni ñu ko soxlaa daal affaire bi gaawut gaawut yow noo noo noo noo foog ne noonu noonu lañ ko mën a gën a ajusté si wàllu si sustenance of séeréeru culture and tradition indi Gambie here ah lu ma lay wax ne mooy lii ah Souleymane. si daal li fi naka lañ ko jeex lu nekk da nga ko wax yeex. lu nekk li fi nekk dara ah dara du ñëw si yoon lu ko def lu lu lu lu lu easy daal. foog nga foog nga foog nga ci pare si jóg. def si sa doole. soo séeréer yi nga xam ne ñoo nekk Gambia fii nii dañ war a jóg ñoom tamit. dañ war a jóg li fi nekk local government bi. ah suñ ci aw ñu am ñi nga xam ne dañu nekk si mbir si mbir buur si mbir buuri Gambie te li amut yaakaar nañ ko ne dañu nekk ko te even su nekk yaa ngi seet media houses bi nekk Gambie lu ñoo def defi naka lañ koy jëlee suñu ay ñu nekk pro radio programme ñu nekk télévision programme si gis defi naka lañ aussi di nga baat séeréer noonu soo nag li fi naka lañ koy tee sa séeréer ñoo war a jóg ñoo war a jóg ne li fi naka lobby government house li fi naka institution nañu fi ñoom tam seen agenda mu ngi si on the books soo ñu ñu a toog rek di xaar nguur gi di xaar nguur gi di xaar nguur gi di lifin soo séeréer ñoom ñoo ko war a fas ñoo ko war a ñoo ko war a tiisatoo ne ok fi nekk ni na enough is enough is enough ñun tam am nañ ci cër si si dëkk bi fii ñun si cosaan yàgg na fi te ñu ngi si do doomu doomu raw doomu raw cosaani Gambie te boole ma si cosaani séeréer ñi nga xam ne xeet bu yàgg nañ ñoom ñu ngi nekk sañ ci dëkk bii nii politique politique politique Gambie sax séeréer yi bëri woon nañ Exactly.
ñoom Père Sarr Ndiaye dégguloo soo lifin naka lañ koy soo Gambien séeréer séeréer yi nga xam ne ñoo nekk Gambien ñoom ñoo war a tiisatoo lii ñoo war a jóg nag def ko ittee jóg leen def def ko ittee mais fi nekk nii ne dañ bëgg suñu agenda ñun tamit drive ko forward ko defee nag léegi naka lañ koy teesa ñu inco inco incorporate inco into the education system inco incorporate ko into how to call the media bi te media yi ñoo wax yo so show yi tey def so booy gis ñu ngi tey def olof lañ tey def dara dara ay sa loolu ñu te olof baax na di fi naka moom tam baax na moom tam olof la nekk fi suñ ko defee si olof ñu ngi ko def si si man ninka man ninka baax na moom te man man ninka rek nekk nekk nekk fi sure soo li fi naka lañ ko tey so ci ci ñi nga xam ne ñu ñoo nekk ni am um, leeway the stone circles of Senegambia am na prof am na historians scholars bi nga xam ne ñoo ko ñu ko ñu ko ñu ngi ko wax ne ñoom séeréer yi maanaam séeréer yi ñoo ko bil te ma si Senegambia stone circles yi ah moom ñu xam ne dañ ko te ñu ñu ñu fonk la si dëkk bi fii nii su pas part of our cultural heritage so su nekkee loolu is part of bi dañ ko respect bi nekk part of our cultural heritage te historien ak ak ak ak yoon yi kat evidence bi moo ponte ni ñii seen maam yaa ko bil kon nag bon ngaa jox ñuy cër kon nag ñu fi naka lañ koy teesal na séeréer bi jóg lobby government bi ko how to call administration bi we make sure ne how to call the Sarah also the the, the Sarah, um the, they are also including the Sarah agenda as part of the how to call the, uh, the political agenda as well. waaw.
ah that's perfect ah comme ah, ni nga ko waxee rek ah, loolu am na solo loolu la parce que daanaka fi mu nekk nii Sëriñ daal ah, dafa xala des gannaaw bu baax a baax si li nga xam ne moom mooy ah, inside Gambie ñëpp ah waaye ba léegi comme like yow ah, you have ah, you know done a magnificent job in the England concerning the Seri traditional culture. ah léegi fi mu nekk nii how are you trying to collaborate or connect that you know to the Gambia here which is your indigenous or which is your local ah, uh, comme yow sa biir dëkk fii di biir Gambia how are you trying to collaborate also to introduce or to also develop or you know try to make uh, such a thing uh, si biir Angleterre foofu noonu comme nga def ko fii inside the Gambia how are you trying to collaborate waaw man li ma defee naka lañ ko kees ah man lii yàgg naa yàgg naa ko bugga léegi yaa defee naka am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi liggéey man Sénégal lañ nekk Sénégal lañ nekk am na ñu nekk France am na ñu nekk Amérique ah wala ñoom ñu doomi séeréer lañ ñu si nekk doomi séeréer bari wuñ ah te ñooñu ay africain lañ ñoom it africain comme ni africain amérique am na benn koo xam ne africain américain la dafa bëgg a indi séeréer moom moom dafa def dégg séeréer saafi ba benn mandis yi dañ ko leen ko jàng ko ko jàngal pour bi la sax moom moom dafa ma tane fukki yoon waaw ñëw ko dimle seen dans John seen la tudda suñ su suma suma oncle dafa am da leen professeur Issa la Thiaw kooku moom koy foofu la nekk moom ngi dala ko mu jàngal ko jàngal ko séeréer bon ko xam-xam bu bari bari si moom la dee woon Sénégal su wóor tamit li fi mun mun loolu noonu wante li fi naka lañ koy test man nag su ma maa ngi fay di ut ay séeréer fii nii comme ni yow suñ yow ak am nañ am ñeneen ak fan ak fan moom tamit ak yeneen ci ñoo xam ne ñoo ñu ngi si dëkk bi fii nii ñooñu tey gis naa ni sa sa wax nañ si mbiri séeréer suñu cosaan tool sa wax nañ si torop man loolu daal di ut man nit ki utuma nit ki rek nga yaa ngi pour pour nekk si media bi rek foo dafa def fekk faatu ko bii in the media no nga bugga nga lifin nag ah nga won ma ne yow lii da nga si sawar da nga si sawar bugga nga ko ba pare am nga si itte pare yaa ngi persévère ah soo mu wanee loolu rek man ni ko sa sa yëf neex na ma man soo ci comme def comme am waxtaan am na yoo xam ne duñ doomi séeréer sax wante lifi naka wan nañ ma loolu rek ubbi naa leen yoon ñu ñu ngi ñu si présence suma rajo bi foofu noonu wante lifi naka lu ma daa ma la maa wax rek mooy su nekkee man gis naa ko gis naa lifam dégg dégg dégg bëgg naa fi indi comme ñu doon wax séeréer du soixante ak ñoom tam am nañ séeréer rajo foofu noonu si Angleterre séeréer rajo moom nag si àddina boo nekk rek te ne rajo la foo nekk si àddina ya mu nga ko dégg moom so bëgg naa indi loolu loolu si si Gambia fii bëgg naa ko indi Sénégal nit yaa ngi wax ne Gambia suma réew waaw Gambia suma réew la wante Sénégal yi suma réew la man li ma dee wax ne mooy Sénégambia la Sénégambia Sénégambia laa di wax waaw nit ki Gambia tubaab bi dañ ñëw jax di Angleterre yi Angleterre yi toj dëkk toj dëkk bi dem jël ñi jël gis Gambia ñee jël Sénégal wante fii maam yi dëkk di ci jamono bu ne daan doxante waaw Sénégal loolu am na solo bu baax a baax comme fogale nana ngilo xaare ka ñu nana se ale tuna a tamsira buga ke andona ye ten refa tafiya maaga kam Angleterre atidin me kam saxle a sénégambia a reka fiin meeke me andoona yee ten a refa cosanum ke andoona yee ten refa séeréer a gidma mbolem wena nangilo xa reka ten waagana ref reka in way a gidma xanang a paax a paax comme mbetana nuun ne reka nuun way yona fo pog nuun a Sulaiman Dong mbek na Star FM radio a 96.6 FM no programme a cosaan séeréer a mega kole dara yoona fa Tamsira Diouf a refa xa andoona yee reka xay gena meeka kam radio Tunda ka no saxle Gambia reka ref moof na Angleterre a ñaaƴa ke andoona yee ten ref no cosaan séeréer mbolem cosaan séeréer reka ten kena ñaaƴa a ken refa calelum ba a jeg teen ke andoona yee ten ref kulang ko andona ye kaga reka gestu oxa maga kam Angleterre a foya ɗola andona ye rek o radio séréer a tout temps ko jege kana fikel maga refen na affaire a cosaan no séréer ngidman nu kaga a paaxa paax fogole nan ngeloxa rek xani ndet bo maga rek kam lamen na ngeloxa tena a refang boob nda fo o njibotum maga kam lamen na boob kunda meka kam tele ndik in we a simna den a paaxa paax it a ndeta bo kam sate fe rek mbolem tom nu séréer refna rek a in we a njokanga njal a coɗango xa ɓaya ɗax a simnanga paaxa paax rek a naame mbuganga ndef kam saate fe rek a ɗeet a kona ke rek xan waxtu fe a laaca ino o ɓeɓe anda bo ndik rek a gidma mboolem séeréer a tami wagona ref kooremu tawno ndegum maagum in way gidmana paax a paax bo ndik rek xani i mbugo mbogan no nunu ande nan na giloxa rek no programme ne mbugo lamta nun ka ando naye rek xana fog no programme ne rek a mbaxtantino rek danaka ino it i mbago njang nanaka itam sira leyna fo ke ley moome anda bo ndik rek xani mbog nu it nu ndefu no programme ne leya in ke ando naye ten nu andu yo no affaire cosano sere me kam lank gambia a bugon lamit rek me kam saxle gambia te ref no affaire no a qatine yo no école ke wala no milieu ne yo na tajo xe wala no télé la oxe adoxna joɗnoxa no affaire cosano sereer me kam lang ke gambia ano namano e xaga i mbugu yo o lamit
I'm better. Somebody, I'm better.
yang ada ko fogol na lang gilo hari ka tumne lay kanu mare ka numba kan Tokida mula na 768-6768 sila tayong pakanto kaya na din ilam siya mo ino kaan na rin atin na mosuyo no ha wala tin ituyo no kanu afil kang atin na ba kasan na sero rita kami may diyan numbog nung waktan na rin kandang waktan na rin kaya hindi nang basa kang susong wala ah, may ka na sili nung na nagilo katang numbog numbog ida no ah, program nila inawa na din ituyo no kanu afil ah, susan na sero
Mayung daro kaje ko na Ito na lang daw ko wangge Yeah.
As
Uh, 788-69-66 uh, wala ka uh, jagalo hari ka halang lumanagar ti anya janun baka nugi na 768-6768 uh, 768-6768 lam tari ka hindi ka nga kuwala di kuwala dadu ka bon na gure ka ka ando nari ka nawaga inulay may kamsakali gambia uh, 8 na nya janun ka anu ginawa chasa no sere wala ka mud na gusto o ka garap na a chasa no sere may kam uh, sakala rekan no idan nung bagong program ya yang ganda kita ko rin dapat tamsir ang mujo andok an kanan tin ba tusan no serera atam sir as ko defere comme dama bëggoon na ñi nga xam ne ñooy déglu ak ñoom tam ah, ñu ñëw bokk si si programme bi ah, ñu waxtaan si ah, simbati na Awa Ndiaye Awa Ndiaye maa ngi ko nuyu ah, bu baax a baax resim na na baax a baax ah, Awa Mewe Xirooxam ah, mboolem ah, waan ah, maaga kam ah, Fadi Bunda rek ah, ñi nga xaaru kii na am na ku ñëw si line bi xaaral ñu seedi kooku kan la allo
May natin.
ah Mehmet rek kay Hindi ako awal dyan, Bundik.
Awa Ndiaye Aha, okay. Eh, nandun yung ano ka, yung siro ni Madam yan. Hindi ko ko na mo. Ha?
ah, bu gorda mo de Hindi ko na mo. Aha, alis ko.
Eh, Leya Ndigil So, mga si ano po ba ang lesson?
yow comme def lang Lahat ko nang yung ninyo mo na may nandiya program niya. Si ano yung pagod na siya na siro sa parko dyan, manabali.
yow
Pahat yung obong bayo. So, karani yung mga siling nam chow.
Sering jauh.
Si ano po, sa suman si siro po. Kaya, eh, siling business party ko namin. Hindi ko ulit kumain yung nagkanagala at yung yaya sa Mariama Joe. Sudah ko wala def ko ko problem ko wati mo na yan.
Jërëjëf jërëjëf Awa Ndiaye yaay bopp wati mo na yan.
jërëjëf Awa Ndiaye Sa ante na di ba ko.
jërëjëf ah xagari u Iko ko na kunde puro ko tel de wala yan.
jërëjëf problème Kasi wala.
jërëjëf ah xagari u Awa Ndiaye maga kama faji pundare kanan def lang inu yang kiro xana apa apa xam kiro xam boleh ma maga xam na yu xana faji pundare ak dégg nga moom li mu wax ah, mu ko noonu ko def leen waaw moom ah, daal ah, comme si gis-gisam moom gis na ne Ibou Kor ah, he is also a presenter moom daf dee def ah, série de programme ah, fale ko GFS ah, gis na ne moom moo nekk ki nga xam ne moom moo njëkk a nekk di gëstu li nga xam ne moom moo cosaan série si biir Gambia ah, xam naa ne yow di nga bëgg a gis kooku noonu ah, parce que ah, kii mention na la na ne he is one of the ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk di gëstu ah, affaire cosaan série bu baax a baax si biir Gambia Yeah.
waaw su ko defee rek daanaka li ñu dese si time bi nag bëreetul ah, nga xam xam naa ne di nga bugg a jox sa laas messages yi ah, si nga xam ne ah, noonu nga gisee affaire cosaan séeréer wala yow luy sa objectif ak sa perspective yëpp si affaire cosaan séeréer in général.
am jërëjëf am Souleymane Ndong jërëjëf am bu waxee nag maa ngi gërëm am awa awa Ndiaye boobu lu mu xool dégg naa kii tamit naka am na ñu ma dégg si lifit naka ñu ne am ibu koor boobu maa ngi koo dégg wante lifit nag bëgg naa koo gis comme ni nga ko waxee dégg nga bëgg naa bëgg naa gis kooku loolu daal moom moo- moom moo tax moom moo tax ma raise question bi ah, pour ma pour ma utal la connexion rek ñi nga xam ne. ñoom Waaw.
ñoo nekkoon ne nekk di gëstu ah, waaw cosaan te séeréer.
ñun dañ day dem dikki si dikki séeréer yi Waaw.
suñ surfante dañ dem dikki séeréer yi am ci si biir àll séeréer yi séeréer yi dëkka Waaw.
jël seen cosaan di ko di ko pésér yëpp te yàgg nañ di def loolu noonu wante loolu fi naka lañ ko jël bëgg naa indi kooku noonu wante jërëjëf yow tamit am Souleymane donc si am programme bi it- am éthique bi nga indi fii nii tey maa ngi laa gërëm defi naka di sant di la sant ak ñu nga xam ne ñu nga ni nga yor yëpp fii nii Star FM ak sa déglukat yi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant lu ma laa bëgg a lifin rek mooy lii nii ah li nga def nii lii lu am solo la bu ko xeeb mukk dëgg la.
bu ko xeeb mukk lii dafa am solo lifi naka mun damaa dugg si dëkk bi fii ni di génn fii mu sama xam ne lifi naka radio sti- ah, radio programme yi Gambia te séeréer sax am na fii nii so lii bu ko bëggee ndax maa ngi laa encourage maa ngi laa gërëm si nga def nii mu la sako yo have our own total on the divided article attention and support so li fi dafa lay bu ko xeeb li fi li fi lu baax la ngay def nii li nga fi di boole siir ñu dégg ñu dégg seen làkk si rajo bi li ko am bariwul fii nii si difee bi mooy wane ay am am na fii Gambia sax so maa ngi laa gërëm si loolu noonu sa liggéey bu baax bi nga def fii nii ak bu jëlee rek ak si def leen association ni Gambia bi fii nii dem gisoon naa leen maa ngi ne gërëm si ni ñoo def nii fooguma ne Gambia amoon nañ loolu sax xam naa ni Sénégal amoon nañ ko ñu ci yàgg naa di diisoo ak ñoom ak France ak yeneen dëkk yi comme woon ne séeréer yi def taxaw nañ fii nii ma tey dima bu mag gis jëmee fu noonu buñ fu buñ buñ buñ defee seen meeting wu ñu ba gis leen su ma xool dafa def dafa bëgg yow tam ma ñëw fii seen rajo si bi fii nii su ma xool dégg si lii nii li ma comme la ma ne bu ma la wax si njëlbeen rek bëgg naa bëggoon naa dégg séeréer rek ñu ma làkkante séeréer wante ñu yàllaa pare fi noonu wante maa ngi leen a gërëm maa ngi leen a gërëm di fi nekk si lu ma bëgg a yokkal nit bi gën rek suñ cosaan dafa diis suñ askan dafa diis te li fi naka lañ koy tees a boo wax ba loo xam ne dafa doon si suñ cosaan war nañ ko di ko xeeb war nañ ko di ko yàq di ko sàggan dañ ko war a di di jox respect garde ko denc ko ba pare paas ko suñ diseen nañ suñ ciw nañ suñ doom yi ñun fi ñu mën seen njëriñ ñu xam suñ jógee ak yooyu noonu su nekkee ne li fi maa ngi doon wax démba amul nga nekk nga nekk séeréer nga nekk muslim mbaa nga nekk séeréer nga nekk christian ba nga nekk séeréer yi topp suñu yoon yi suñu maam yi duñ doonoon seen seen religion doo mën a doon rek doo jàppal ni xamal ne suñu cosaan dafa diis te buñ xeeb li fi naka lu suñu maam yi doon mais te li ma lay wax mooy lii suñ traditional religion yi africain fa la suñ civilisation jógee fa la suñ histoire jógee fa la suñ culture jógee te doo mën a wax ne bëggoon nga cosaani Sénégal bëggoon nga cosaani african history bëggoon nga culture african history bëggoon nga culture african ba pare bañ ci suñ maam yi doon respect bu loolu mun ngaa nekk leneen wante at least respect loolu te xam ne soo déggee gëmuloo ma nag seetal seen Égypte seen civilisation bu ñëw jëkk li fi ñëpp di wax si àddina fii nii seen diine ba moom moom lañ moom tax ñu moo taxoon ñu sañ ko ñu sañ ko so waaw am na ñu nekk si leen xam naa ne waaye dinañ jégalu bu baax a baax ndax parce que fi mu nekk nii waxtu bi daanaka jeex na mbaas noo xam ne ndeko mbooleen moo xool fogale naan gi loxaa rek te de waa Tamsira Diouf mega na sa FM radio bo dimanche fo nagara rek xani ɓaɗa sutoxin men atana nun mbooleem kandona tende ba tosana sore fo loxaa nuno fogum Souleymane donc a konte an um nun Welcome to Star 96.6 FM.